man bi ma toogee noonu ki ma dendal moo ne ma feede mu ngi feede mu ngi tàkk ma gestu ñu ne ndox ndox ndox ndox ma jël siwo ndox bi nekkoon noonu sama kaw place ñu daal di ñëw sotti bi ñu sottee nag mu daal di fay bi mu fayee tuuti xale góor yi wane ginnaaw rek affaire bi daal di explosé xam naa nag dafa laal frigo yi affaire bi daal ay frigo rek a nekkoon ci biir ndax ñun ay frigo rek lañ ko xamee ni moom lay defar xam naa nag mën na nekk courant ngi ci biir ndax bu nekkee ay lamp ak yooyu dañ koy soxla ak yooyu mën na nekk courant ngi ci biir ndax man fii mosuma fee taxaw mosuma fee taxaw ñoo nekk rek dama leen di seen fii ñu ñëw sama place jënd waaw loolu moo ñu boole. man sama téléphone mii jox naa ko xale bu jigéen bee ne ko numéro sapeur xaw ma ko nag mais wool ma sapeur mu woo ma sapeur a ngi jox ko ma ne ko ñiy woote fi mu toll ñoo bari. situation bi daal man noonu laa ko gisee man man noonu laa ko gisee. situation bi dañu toog suñu place ñu arrière ci ko noonu am na benn magasin buy lakk fii biñ fi ñëwee aussi fekk fi wax dëgg yàlla lakk la xaw na yéem lool sapeur ci la ñëwee ñu fay ko. na matériels yi fi nekkoon bari na lakk na. li eh, liñ ci mën a wax daal fi ñu toll nii borom rek moo ci mën a indi précisé boo xam ne nangam lakk na ci loolu rek borom moo ko mën mais ñu ngi wu coono borom wax dëgg yàlla lii metti na et eh, dogalu suñu borom it fu mu jógee aussi ñu xam ne dogalu yàlla eh, dogalu yàlla ñëw nu ne ñu ngi koy masawu bu baax a baax ku ko gis xamna nañu matériel yu bari lakk fi wax deug yalla lakk fi. benn gaz bi ñu doon dal daal xam nga moo ci biir effectivement mu lak mais ñu ngi koy masawu ciono bu baax xamni aussi li dogalu suñu borom la yalla lu mu dogal ci jàmm kenn mënu ci dara yo vraiment metti na ñu ko bokk mom nakar ji kon metti lu wax deug yalla metti na. tey dañoo woowoon pour euh, benn feu magasin hein, fi ci garage Morolan hein. bi ñëwee effectivement atelier chargeur euh, frigo mo doon lak avec euh, nos moyens, on a pu maîtriser le feu et l'éteindre hein, avec une petite lance. Euh, atelier chargeur frigo il y' a, euh, amoon ay frigo yu brille, yu nekkoon ci biir ak ay chargeur frigo il yu nekkoon ci biir yooyu vraiment li ci de bëriwul daal bu dee am na lu mucc heureusement aussi on a pu amul daal dégâts du côté humain c'est-à-dire nit daal ñàkk ci bakkanam mais nak euh, matériel bu bari yàqu na fi. koy fay nak euh, courant bi mo ñu xawoon déranger touti parce que courant bi coupé wuloon té da doon ki bon mais quand même avec la Sénélec euh, on a collaboré on collabore toujours et la Sénélec a rapidement moko ko coupé quoi ñu coupé courant bi après euh, fay ko jafetul da mën naa ni mbiru mbiru yàlla la rek mbiru yàlla parce que man ma fay chalumeau bi seug ci biir frigo bi dama jekki jékki rek. mu tàkk jékki-jékki rek mu tàkk mënu ma laa wax ni lii moo ko taal xaw moo ko taal xaw nay frigo yi fi nekkoon ay machine yi ñuy liggéey yooyu yëpp ci biir loolu ne su ma ko noon xayma mën na cinq millions bagage yi jàmbur yëpp mën na cinq millions fu mu toll ku ma mën dimbale rek ci bagage yi rek laay ma mën a defaraat ba mën a taxawaat liggéey loolu rek laay ñaan